mi gëjoon la gis nag nam la. waa gëj naa <laughs> fi mu toll maa ngi fi waaw dama toog rek nag ñu gis la nga ñëw ci euh, mariage u Aida Samb ñu bëri nag xamal ñu ni euh, dox tànku mbokk nga. Hmm. donc lan nga ñu mën a wax tey si bésu Aida Samb bi. waaw Aida maa fi dafa dama kontaan ndax ku teral sa ndey da ngay am teraanga xam nga tey boo gisee yëf yi sedd dafa am ñaari métit yu daje ci moom ndeyam dafa gaañu tantam gaañu tantam nag. moo doon suma lépp moom laa doon àndal ay di sunu doom te xale bu baax bu teral ndeyam bés bii mérité na ko waaw parce que xale bu baax la bu fonk ndeyam doon xale bu yaru daal xale bu yiw bu baax kenn mës sa gis ñu ne wax na fi ñombe ba def na ko fi waaye ñu koy ñaanal bu baax un heureux ménage waaw. tey lan nga koy yebee ci biir këram. wax na góorgóorlu rek àdduna moom yaru góorgóorlu rek. te defe naa loolu rek mooy àddina am respect fonk ñëpp ndax àddina amul benn solo góor góorgóorlu bu baax rek na am courage bu baax. yéen de voix ngeen ñu gis feebar bi ñu bari ñu ngi naan am na amul ñi euh, ñii feebar bee leen yóbbu ñii dee nañ tey boo doon sensibiliser lan ngay wax ñi nga xam ne ñooy say yi. waaw xanaa di di di kii rek gis nga ma ne maa ngi sama masque am na kay feebar bi am na kay si.